les gens euh, loolu généré mais avant loolu nee na. Uh-huh. les prête-noms et autres. Uh-huh. waaw def ñëw présenter wu mais loolu lu important la parce que souvent les gens quand on parle de développement dañuy yaag dañuy commencer ci industrie ak yeneen yi ci des mais am na loo xam ne moo ëpp solo yi nga xam ne les premiers économistes wax nañ ko yi nga xam ne mooy nga taxawal système boo xam ne corruption amu fa parce que corruption boo ko amee ci dëkk san ce n'est pas plus important ñaata richesse ngay produire c'est comme ngay dem rooti euh, ndox ak siyo boo xam ne dafa bëgg na lépp loo produire balaa ngaa egg kër ga mu gën a dem voilà donc c'est j'ai été vraiment euh, très content bi mu euh, énuméré point yooyu ci ci ci discours am bi waaw mhm. wax nga ko wax nga ko sànq avec la cour Macky Sall bi mu ñëwee. Euh, déglu ma yoonu je comprends. Euh, may ma tuuti ma ñëw. may ma tuuti ma ñëw euh, parce que il a dans le même discours xam nga si cité nga fi ay adjectif mooy réconcilier léegi lii bon problème bi mooy y a des gens qui vont penser que comme il a dit ces termes là li nga xam ne c'est dans le cadre de la réconciliation on va tourner la page. Bien sûr, on va tourner la page en certain moment, même, mais il faut que les gens sachent qu'on va lire la page avant de la tourner. waaw donc euh, euh, message yooyu mu yónnee yi nga cité noonu kooku ça se fera et c'est une grande première parce que bu ñu ko deful tous les efforts qui auraient été déployés dara Sénégalais duñ ko gis on l'a vu et comme tu l'as dit euh, le même message a été tenu par Ablaye Abdou Diouf Ablaye Wade également c'est ça Macky Sall bu muy ñëwee bon pourtant c'était un programme de gouvernance qu'il avait porté au pouvoir yoonu yokkute bi mu doon wax gouvernance vertueuse c'est pas un concept que les gens de passé font inventer xam nga mais la réalité on l'a vu donc en réalité comme il l'a dit comme on l'a fait avec Dia on a pris son modèle on va le mettre en place les autres présidents yi nga xam ne ils ont tenu des discours yoo xam ne c'était vraiment attendu du peuple sénégalais lutte contre la corruption defuñu ko on va le faire et en fin de compte nous on aura juste yoo xam ne nit ñi yàgg nañ ko débattre